gars yi ñu ngi may yàq quoi dama def ay micro cravate quoi. oui fi mu ne micro ba fi mu ne nii gars waxal ci li waay DG waxal ci li waay ji nga gars yi ngi may di ma jox micro cravate. sunu confrères yi ñoom aussi ñu ngi ci kaw di liggéey liggéey bu am solo les sites internet la Rufisquoise Kumba Lamba Demba mon ami Rio TV et Fall Enco Fall Enco waaw. ñu ngi def fii ay direct euh, au niveau de le stade Ngalandou Diouf pour le compte de la zone 2A de Babacar Dieng match bi jeex sànq mooy ASC Guy Bonne ak Arafat occasion de l'ASC Deggo sant yàlla waa ji door na ko bii. Deggo waa ji dafa élaboré contrôlé teg ci kan yu fees ASC Déggoo waa ji lii la amoon sànq bu Arafat bii la ASC Déggoo bii la ASC Déggoo supporters yi doog a ñëw noonu cung yi doog a ñëw noonu un mois sànq ñoo jëmi yi ñoo dem jàppante xam naa booy dañu daw bàyyi ko cumi yi mais tout ce qui braqué wu leen dara ci match bi ASC Deggo Daaru Rahman qui mène 1 par le numéro 3 moo dugal bi bi Deggo 1 moom c'est réew on vient juste de jouer à 3 ou 4 minutes comme ça Deggo Deggo oh défenseur dafa bàyyi goal bi bu goal bi jël ko. mais déggawu ñoom ñaar mais heureusement góol bi génn na jël ko dégagement loo dégagement pour le gardien deman na le numéro 17 un bon dégagement pour le numéro 17 waa ji du wala tànkam laal bal bi mu na corner corner bi effectué nañ ko joru moom séré bi mbëkk na ko raara terre la ko def mu mbëkk ko demi volée numéro 12 la ASC moom séré door na ko mais terewul bal bi mi ngi waaw moom séré ba tey pour le numéro le numéro 15 ko pono ko pono ko nan lay def ñu xol ba xam na lay def ba ci na bal bi coup franc la bëgg wala touche coup franc la bëgg o touche gëna na bal bi finalement amu solution bal bi gëna na ko réalisation bi y'a aram patron Thierno Laurent mendi mom bu ñëw rek Thier jox ko daal daw ya aram yo réaliser baaxul aram booy suñu jigéen bobu la femme patron dego moom sa réew élaboré noonu lu ci kaw ballon pour waa moom habillé en jaune et noir et bleu bleu de nuit dem nañ touche ne tey dafa def bleu de blanc ci suuf ay tegtal la xëñ bés bee ko laaj je suis dara ci ballon pour l'ASC Dego, bool bi génn na ko en chandelle récupération pour le numéro 10 l'ASC moom sa pas longtemps Dego, le numéro 8 Fort ci milieu terrain bi arbitre bi 1 à 0 pour l'ASC Dego. pour les premiers 5 minutes de cette match numéro 3 bi moo le numéro 2 dem na dafa na ko profondeur mais bal bi génn na en touche touche pour Déggo waaye jox na ko remise baaxul mais terewul récupéré na ko teg na benn eh door na ko waaj dafa dugal tànkam góol bi del tànk ko dugal tànkam dugal na tànkam heureusement góol bi gis na ko def deux temps la ballon dugul pour la deuxième bi de Déggo Darou Rahmane bal bi dugul déggoo daal Rahman moom sa réew déggoo daal jox nañ libéro bi mu def benn ci digg bi defal ko latéral bi le numéro 2 jël na jox na ko la numéro 17 une deux oh. déggoo daal Rahman moom sa réew touche pour waa moom sa réew delloo na ko pour le numéro 2. de moom sa réew mu dégagé ko en chandelle ci biir la ko dugal paquet bi joor bi mbëkk na ko bu déggoo daal Rahman day génnaan touche bi effectué ko effectué na bi pour waa moom sa réew waa moom sa waa moom sa oh, day génnaan corner la bal bi génn corner corner non franc la arbitre bi wax wala mu wàcc bi saa yi mbaxana bi franc pour waa C'est côté touche bi la ci côté touche bi deux jours de Godard Rahman ñoo taxaw à la position du ballon Demna, demna, demna, demna, défenseur bi devient na ça va sortir en corner ou en touche et touche le mujjee touche le mujjee l'avantage à moom sa réew gaawantu une touche bal bi Oh, le touche est mal fait génnaan na touche pour l'avantage de Deggo Darou Rahman ngi bàyyi latéral bi ñëw effectuer la touche un but à zéro pour Deggo Darou Rahman à la cinquième minute touche nañ bal pour le milieu terrain récupération le numéro 15 et onze Fleurir arbitre bi nee na faute y a une faute nee na na pour le numéro 11 Deggo Darou Rahman le numéro 11 da dégoon perdu bal bi génnagul bal bi génnul touche arbitre bi signalé na l'avantage à moom sa réew na bal bi effectué na ko moom sa réew mu indi taxo pour le numéro 15 qu'est-ce qu'il va faire joxaat na ko pour le numéro 10 il ngi joué di élaborer sur la côté bi assez ah, bien fait le numéro 15 de l'ASC moom sere a profondeur pour le numéro 10 mais ko défenseur Il ngi foofu taxaw waa déggoo Rahman ils sont prêts ils sont prêts mais duñu leen récupération pour moom toujours moom sa Oh, il oh yàqu Darou Rahman loolu excentré de Darou Rahman il était rapide à profondeur le numéro 3 encore à une hors-jeu oh, arbitre de touche bi nee na hors-jeu numéro 3 de Darou Rahman dafa ak le numéro 7 def nañ permutation mu dem côté gauche mu ñëw côté droite waaw noonu la ce sont les systèmes des fois dañu xool gën a dox ñu gën a xam ne kii xam ne moo gën a ne en jeu et eh, le numéro 17 le numéro 17 qui va qu'est-ce qui va faire va dribbler daanoo na ci surface bi door na ko góol bi génn ko voilà bi génn na ko je crois c'est un corner encore une fois à l'avantage de Deggo Darou Rahman le numéro 3 aywa dem na mbëkk na ko bal bi génn na match bi reprendre na pour déggoo le numéro 15 mu élaboré jox son sapeur mu jox latéral bi day dem wala nu muy def dem na day voyagé day dem day dem day dem la donné son excentré mu delloo ko nu muy def day wëndaal benn teg na benn euh, défenseur bi laal na ko mu génn corner corner déggoo 1-0 pour déggoo corner bi dem na. Guéry reprendre na ko pour le numéro 15 mu def crochet baaxul yàqu na récupération pour les joueurs de Moom Sa Réew ñu dégager mu génn seen zone waaw Moom Sa Réew dégager nag mu génn pour le numéro 15 mu tegal ko latéral bi dem qu'est-ce qu'il va faire mu defal profondeur le numéro 10 touche le numéro 2 def na touche bi jox na ko waaye ñu ñëw na joué encore mais touche at bi nee na la mu touchaat ko encore le numéro 2 le numéro 2 ballon pour waa moom sa qu'est-ce va faire waa ji génne na bal bi tous pour waa Deggo Darou Rahman tous pour waa waa ji dégagé na la capitaine le numéro 8 tey moo jël place capitaine bi tey roon gisuma ko tey roon gisuma ko tey capitaine bi moo ko jël oh, occasion moom sa réew les 16 même bi daanu na qu'est-ce qu'il a dafa blessé na arbitre bi nee tey bula lañ def def blanc ci suuf bàyyi lu mu doon après naa ko laaj Ibou Ka MBS naa na ko tettal la wala dalal la moom sa réew waaw ah, toos pour amoon sa réew toos pour amoon sa réew amoon sa réew na bal bi pour déggoo sant yàlla na foot mais mel na ni pare na arbitre bi nee na da ngay génn après dugaat pour ñu reprendre le match déggoo un moom sa réew zéro bal bi dagaase nañ ko récupération le latéral de l'ASC Dar Rahman delloosi na ko qu'est-ce qu'il va faire dañuy ñibbi wala dello si ko joxan na ko le latéral Muitas jox son milieu terrain récupération pour l'ASC moom sa réew rek qu'est-ce va faire au touche waroon por def lu gaaw ah match bi reprendre na ñu ñëwaat ci match bi waaw ñu reprendre ñëwaat ci match bi waaja teg na ko wondaal na ko wala première photo non baaxul da koy jënd gars ko di nuyu waa Mbaaw waa Tëngéej waa Kër Massar ballon pour Deggo Deggo sant Yàlla tous tous waaye crochet la bëggoon def ballon pour moom si réew ballon pour moom si beeg boo daaru rahman contre day day dem wala day dem day dem ëlbatiku jox la latéral mu xool nu mu def mu aj benn défenseur bi récupéré na ko pour waa moom sa aj aussi ñu dem oh, dégagement de latéral gauche l'ASC Deggo Darou Rahmane bal bi en chandelle mu ngi ñëw ci milieu terrain bi récupération demande oh jàllul jàllul profondeur la dem defal pour le numéro 3 mais jàllul. Dialloul récupération pour le latéral droit de l'ASC moom sa réew mu ëlbatiku jox le numéro 11 defal lu simple waay bal bi génn na effectué par le numéro 2 de l'ASC moom sa réew mu jox seen numéro 11 mu delloo aussi ko élaboré ci beneen côté bi mais baaxul baaxul récupération le numéro 5 de l'ASC Darou Rahman Dego Darou Rahman mu jox son la SPE mu jox libéro bi mu delloowaat au milieu terrain jox la capitaine la numéro 8 mooy def sentinelle le numéro 8 mooy sentinelle bi le numéro capitaine le numéro 8 ah pour l'ASC moom sa réew oh waa ji bal bi daf dugg tegante tànk yi mais tey naa mooy ki récupéré na ko jox le numéro de day génn wala du génn génnul oh da ko doon daaru def nañ touche bi le numéro 2 le numéro 2 mu centré ko góol bi da koy jël ok góol bi da koy jël sans problème da koy jël sans problème relance na ko jox na ko son stoppeur dégagé Mohamed Diagne numéro 14 bi mbokkante ko le milieu terrain récupération Moom Sa mais par récupération pour Moom Sa Réew récupération Moom Sa Réew waaye da def wala waaye def na fort arbitre bi may na fort waaye am jël rapidement bu gaaw la numéro de qu'est-ce qu'il va faire mu tëbal ko ci ak central bi mu mbëkk ko seen jour défenseur bi génn na touche touche eh, touche pour waa Deggo wala waa moom réew waa ji day tëmbalaa nu mu koy def mais benn jour am foofu dévié na ko mais góob bi da koy jël sans problème pour la gardien de l'ASC Deggo Darou Rahmane dégagé na un très long dégagement mu dem ci camp adverse bi a personne là-bas góol bi ne leen baal ma récupéré ko góol bi yokkal ko mu jël ko. élaboré na ko sur le latéral mu def benn pour am moom sa réew bien nañ ko mu dem ci beneen zone bi pour l'excentre mu def benn profondeur bu naw ñu avancé ñu xool qu'est-ce qu'il va faire pour le numéro 17 mu defal le numéro 2 dina ko jàpp teg na benn récupération pour le joueur de Dar Rahman arbitre nee na y a rien arbitre dara amu fa pour am moom sa réew le numéro qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire bol de combat récupération pour le numéro 17 de l'ASC Deggo le numéro 10 mu defal ko benn une deux bien fait mu teg benn dafa sori waa ji xoolul le numéro 10 pour le numéro 3 dafa sori bal boobu Daaru Rahman bleu tey Chelsea lañ def tey dañ ñëw rek def waa Ndegor Daaru Rahman dañ ñëw rek def Chelsea tey récupération pour waa moom sa arbitre bi nee na yaa rien mais waaye il n'est pas réaliste le numéro 10 paasam yi baaxul deuxième fois mi noonu mu koy def mu dal ci kaw waa ji récupération 3 moom sa réew numéro 11 de l'ASC moom sa réew mu def fële ci profondeur bi élaboré ko ci beneen côté bi mais ça va sortir en touche 1-0 pour waa Deggo Daaru Rahman 1-0 pour waa Deggo Rahman mom sa réew ñoo mu bi noonu le numéro 15 door na ko mais baaxul waaye récupéré na le numéro 12 l'AIC, Deggo Darou arbitre a rien il faut jouer tacle, na récupération pour waa dégo Rahman. le numéro 8 le capitaine mooy def le sentinelle moo koy assurer le sentinelle le numéro 8 de l'AIC, Deggo Darou Il ñu en train de faire un grand match root na wu fi mais assumé na ko je suis le capitaine mi ngi donné le bon exemple il se mouille la maillot il se mouille le maillot à profondeur jox na ko waa ji l'attaquant mu tegal ko benn le numéro deux y a mu dal ci góol bi gënaan à deux temps y a personne dégagement un très long dégagement góol moom ci kaw lay aj ca kaw lay aj yu kawe def ascenseur arbitre bi rien récupération pour waa moom sa cette fois ci coup franc bi tiré nañ ko dem na ci camp oh góol bi na ko facilement déggoo daal Rahman dagaase nañ bal mu dóor ko mu dal ci défenseur bi ñëwaat récupération croix moom seree dégagement bi baaxul jour déggoo daal Rahman récupéré na ko mu texal ko benn leg centré latéral qu'est-ce va faire day bàyyi mu génn wala tegal na ko récupération euh, perdre na ko waa moom sa réew ñoom bi def nañ ko à profondeur accéléré nañ ko waaye tegal na ko benn ils sont pas euh, faute faute coup franc bi dem na mais c'est mentir on dirait non pourtant remettre na ko y a personne tiré nañ ko waa déggoo dara xamaan dégagé ko mbëkk mu génn bal bi génn jeexagul jeexagul pour toujours pour moom sa réew qu'est-ce va faire waa ji door na ko mu dal ci tànku défenseur bi ñëwaat mbëkkaat ko dugal na sa réew qu'est-ce va faire teg na centre teg na centre góol bi génne na jël ko pas problème benn problème dégagement enchaîné na ko numéro 17 bi dem na mais bal bi egsiwul ci moom récupéré nañ ko waa moom sa réew mais jeexagul la numéro 3 jëlaat na bal bi pour waa Déggo Daaru Rahman qu'est-ce qu'il va def na benn ci numéro 17 bi mu delloo ko. mu delloo ko le numéro 3 de l'ASC Deggo il est bien le numéro 10 Inde am Diop Inde Ndiaye defe na ko profondeur qu'est-ce qu'il va faire bal bi jëy génn noo génnul am na corner loolu bëggoon am na corner koy def def na ko génne na ko oh mbëkk na ko mais baaxul mais bal bi génn Deggo Darou Rahmane récupération door na ko oh, dans les 16 a jour de l'ASC moom sa déggoo daal Rahman euh, moom sa réew zéro touche bi effectué nañ ko waa moom sa dem na dem na touche bi dem na pour waa déggoo daal Rahman récupération jox nañ ko inde mu dem élaboré na ko ci beneen côté bi def na au milieu waa ji ko dem nañ le numéro 15 le milieu de terrain mu élaboré dem ci beneen côté bi latéral droit bi mu jox excentré bi qu'est-ce qu'il mu retourné mu retourné teebal door na ko ci joru kaw joru daal Rahman bi day gën en touche mu ni à la 5 minutes de ce match pour le numéro 3 de l'ASC Darou nañ ko ci kaw touche na nee na arbitre bi nee na touche bu revenir encore pouvoir moom sa réew dafa nañ bi de sorte moom sa balu perte na ko par les joueurs de Dar Rahman l'ASC Deggo Dar Rahman ñu def en profondeur à côté bi il est bien dem na dem na oh. défenseur bi dafa ñëw teg tànkam mu ci mais remise bi baaxul récupération toujours à Montserrat bien joué joli talonnade mais ça ne passera pas récupération pour les joueurs de Darou Rahman euh, dribble le petit pont la fin oh corner corner parce que nañ ko bu ndaw lañ ko def quest que qu'il va faire retourné na retourné na joxal naka na ko ñu génnaat on va sortir la génnaat nañ bal bi nañ ko def ko profondeur mais waa moom sa réew fa taxaw récupération touche boobu Ada Rahman touche def nañ touche bi ña dem ma dem waa moom sa réew ko noonu fii doo fi jaar

Touba moom sa réew bal bi génnul en touche récupération pour le numéro 12 oh arbitre bi nee na fort cette fois-ci nee na fort am benn jour waa Deggo bu tëdd ci bi arbitre ngi dem di ko xool. Thank you. sérieux def na profondeur qu'est-ce qu'il va oh à deux teg nañ ko Renoise voilà Renoise def na ya profondeur ci axe récupération door na ko bal bi waa Rémy Seré mbokk ko delloo at ko mu ñëwaat ci camp Deggo qu'est-ce que va faire récupéré nañ waa moom Seré récupéré na ko jour moom Seré bi waa jour Daaru Rahman moo ko récupéré Daaru Rahman benn a delloo si wala défenseur te moom Siré mu dooraat ko mu dal ci kaw joru moom seen jour moom ballon droit déggoo Daaru Rahman ma ngay dem dem na nag centré tegal ko benn qu'est-ce qu'il va faire oh door na ko mu dal ci défenseur bi eh, touche na ko touche na ko pour déggoo Daaru Rahman balay récupéré de l'ASC moom Siré dañ koy génne dañ koy génne mais pas pour longtemps récupération pour ñoom aussi bal bi yàggul ci ñoom wax dëgg wa moom Séeréer dégagé nañ bal bi cette fois ci ça va sortir en touche touche pour waa dégg daal Rahman waa ji touche na bal bi dem na qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire le jeu de l'ASC Deggo Darou Rahmane ba tey bal bi génnagul ah cette sorti c'est sorti en touche pour waa moom si allo allo yéen a ngi suivre toujours fii ci pour moom sa réew teg bal bi jox ko delloo si na ko pour waa moom sa réew oh fort fort joueur lay xañ na ko joueur défenseur Deggo Darou Rahmane bëgg nañ ko ñu élaborer mu dem ci beneen côté bi pour les centrer qu'est-ce va faire waa ji dem na dem na à profondeur mais joueur waa moom sa réewul ma nga fa door na ko mu nekk en touche gardien qu'est-ce qu'il va faire day aj aj na ko Jorou Darou Rahman mu ñëw na mbëkk na ko dugalaat bal ci terrain bi le numéro 12 qu'est-ce qu'il va faire pour def na centre góol bi jël na ko à deux temps à deux temps la ko góol bi jël jël na ko à deux jël na ko à deux temps waa moom sa réew ña ngay dem mais côté droit élaboré nañ ko à côté gauche waaye di def benn retourné dem na l'excentré qu'est-ce va faire day tourné mi me na day dellu si waat day dellu si waat sur latéral bi latéral bi mu ngay jéem a dem aussi mu nga jéem a dem mais ça passera pas vraiment perdu bal bi perte ko waa waa moom sa réew récupéré waat nañ ko cette fois-ci c'est fini cette fois-ci c'est fini Deggo Daaru Rahman jox la numéro 3 l'auteur du but dem na à profondeur contre attaque hors-jeu hors-jeu laa doon di signalé nii naa mooy que góol bi génnoon na naa mooy bi góol bi génnoon na la gardien de l'ASC moom sa réew déggoo Daaru Rahman. am jërëjëf. déggoo Daaru Rahman moom serait un bi à zéro pour déggoo déggoo tey Chelsea la def pour ñu ñu dàpp. tey moo def bleu blanc def mooy Chelsea yooyu waa moom c'est ils sont habillés en jaune et des bas bleu de nuit récupération pour les joueurs de moom sa contre-attaque dañuy dem balancer na ko ci milieu bi le numéro huit le sentinelle mbëkk na ko bal bi génn c'est le capitaine de l'équipe de l'ASC Déggo defal na ko benn à profondeur waa ji dégagé na ko qu'est-ce que waa bal bi génn naan touche pour l'ASC Déggo Déggo Darou Rahman suivez aussi avec waa Fall Co depuis Kolobar le match entre Dego Sanka Dego Darou Rahman et Moom Sere bal bi génn na en touche rythme bi xam na wàññeeku am na benn zéro bu tëdd arbitre bi ni muy def da arrêté match bi góol bi tëdd na jour bi tëdd na. possession bi ñoom waa moom Séré ñoo ko yor bi def nañ ko mu gaaw moom Séré ci seen dribble pour la première fois la deuxième fois jàll na ah bien joué le numéro 15 de l'ASC moom Séré mi ngi def un match bu rafet waay bu am solo oh yaa coup franc eh waa moom Séré souvent moom séeréer moo def kuuf mais am na lu muy def ñu sànni ci yi dem na wis na ko wis na ko xam naa mooy camp yi dañ ko tëj xaar ñu dem ko tijji dégagé na bal bi pour le numéro 12 la latéral gauche de l'ASC Deggo Darou Rahman ma ngay dem ma ngay dem inde beltelona dafa ko profondeur le numéro 3 action bi rafet na oh, góol bi génn jël na ko la gardien yi génn na jël na ko góol bi génn jël na ko le gardien yi génn na jël na ko le gardien yi jël na ko le gardien yi na ko le génn jël na ko le gardien jël nako dégagement pour le défenseur de l'AIC, Dego Darou remettre war nañ ko au paquet récupération toujours ballon pour l'ASC Dego Darou def sur son milieu terrain le latéral gauche qu'est-ce qu'il va faire le numéro 12 ah da ko dem a pont baxul le numéro de la mom sa réew waaw moom sa réew ñoom ah, occasion à ah, le numéro 5 de l'ASC balancé na ko l'autre côté le numéro 17 le numéro 17 de l'AIC, Dego... le numéro 17 de l'ASC Deggo Darou Rahmane da koy pont da koy pont teg na benn heureusement défenseur bi rek tànkam pour Deggo Darou Rahmane oh le corner est mal tiré dafa sori dafa sori touche corner bi dafa sori waa ji na ko woon daal bu ndaw rek mais c'est trop loin dafa sori dafa sori Deggo Darou Rahmane moom sa réew waa ji li ngay def fa yéex récupéré par le numéro 3 mu def ko chandelle ci biir góol bi jënd jël ko relance le gardien de moom sa réew relance bi baax na waa jee ngay dem l'Alexandre touche pour waa Deggo Darou Rahman défenseur waa dégodagement ñooy balancé noonu bal bi ñoo jox na ko le défenseur récupéré na ko dégagé ko est-ce que du am fóor arbitre na di mais waajee ngi tëdd ba tey le jour de Deggo moom ah moom Sérère il blessé il blessé corner amul centre amul corner amul centre gardien bi teg na bal bi aj na ko très loin mu ko le sentinelle le numéro 8 de l'ASC De Gaulle le capitaine il est parti dem na dem na qu'est-ce va faire door na ko mu dal ci latéral bi touche heureusement bal bi jàllul touche pour l'ASC De Gaulle Darahman De Gaulle Darahman touche effectué nañ ko baaxul waaji teewul bal bi dans les 16 16,50. Seize mètres cinquante. l'ASC moom sa réew balancé nañ ko ci toujours la possession et à Dego Rahman, Rahma ñu mbokk ko jox le latéral marqué bi bi bal profondeur ah, day génn touche day Touche. touche côté turbine Dego daal les supporters Dego déggoo daal ñu poussé équipe pour ñu marquer le deuxième but. la deuxième but qui termine toujours à venir. pour l'ASC Deggo Darou Rahmane ah ma ngay dem nañ cette fois-ci peut-être sera la bonne waa ji tee na qu'est-ce oh, door na ko demi volet défenseur bi delloo na ko mais bal bi ba tey génnul pour l'ASC Ndiégo Dadar Rahman bal bi génnul qu'est-ce que génnul récupération pour la Ndiégo Dadar Rahman pour l'ASC Ndiégo Dadar Rahman l'excentré qui fait un petit pont mais jàllul waa ji dafa taxaw xaar ko waa dafa taxaw xaar ko waa moom sa réew nañ bal bi une touche de balle passe bien qu'est-ce qu'on va def na ko ak centre bi cette fois-ci c'est très bien dina ko téye téye na ko de téye na ko téye na ko. jox na ko le milieu terrain qu'est-ce qu'il va faire mu dugalaat ko profondeur oh, waa ji dégagé na ko mais bal bi jeexagul comme on dit ba tey ñëwaat na sur le numéro 10 qu'est-ce qu'il va faire day dóor day dóor oh day dóor dóor bi amul doole góol bi jël na ko deux temps deux temps la ko góol bi def jëlaat na ko ba pare tëdd defalaat nawetaan day fa benn 10 secondes 15 daal di kii ba moo ma ne def na relance def na relance ba mu bi def na relance bal baa ngi ci Wadego waa moom sa ñu ngi koy delloo ballon waa Wadego encore moom sa réew def nañ passe ci milieu terrain bi ñu élaboré mu ñëw ci côté latéral le numéro 12 latéral gauche il bien day dem day dem na dem na yaa rien arbitre dina amul touche bal bi gënul mais récupéré waat nañ ko le numéro 5 de l'ASC Dego Darou Rahman mu balancé ko ci surface bi mu dal ci benn jour waa moom sa réew récupéré ko xoolal numéro 10 jox nañ ko o oh, baaxul waa ji daf bëggoon ubbi tànk yi bal bi dal ci mu contrôlé ko mais ça ne passera pas jàllul mbëkk nañ ko waar moom sa réew le numéro 8 la sentinelle perte na bal bi foofu kenn dafa perte bal foofu kenn dafa fa bal foofu kenn dafa perte bal foofu kenn dafa perte kenn dafa perte bal voilà waaw gis nga déggoo na ah moom moom sa réew doon na ko mu dal si défenseur bi mi ngi réclamé bi nee na ko yaa rien défenseur bi mbëkk na mais bal bi dafa ñëw ci waa déggoo nu ñuy def dafa na ko profondeur mais ça jàllul jàllul jàllul jàllul récupération proie moom si réew ñoom ñi ngi ñëw ci milieu terrain bi defoon na ko ah quelle passe quelle passe nu muy def nu muy def day dindi waa ji way dindi waa ji oh, passe na ko ci milieu terrain bi c'est bien waa ji yokk na ko beneen côté bi effacé na ko mu teg benn le gardien moo koy jël dafa yomb c'est trop facile waaye dafa doon naka ko mais ko jël dafa ko waaw mais investisseurs ji nga ne techniciens lañ bàyyi ñu reporter reporter sont là occasion bi oh bool bi génn na mais ça ne ñëwaat ci match bi corner pour l'ASC Deggo corner door nañ ko c'est sort corner sortant la récupéré waat nañ ko ci beneen côté bi waa ji dooraat comme doit sur dégagé par les défenseurs de l'ASC waa ji wandaan na ko c'est bien parti no y a personne pour la réception waa ji door na tegal na ko le numéro 13 contre le contre le contrôle oh dafa sori dafa sori bal bi dafa sori bool bi dafa taxaw rek jël ko léegi récupéré nañ ko waa moom sa réew la numéro 3 qu'est-ce qu'il aussi moom aussi na ko dans l'axe mu mbëkkal ko góolam mu jël ko mu mbëkkal ko góolam mu jël ko le gardien de Daaru Rahman dégagement moom dégagement yu ngand lay def moom waaye bal bi bondé na récupération pour le joueur de Deggo Darou Rahmane touche pour waa moom sa réew touche pour l'ASC moom sa réew a nañ touche bi waa ji mbëkk na ko pour avancer jéggi waa mu bàyyi bal bi ñëwaat na ci milieu terrain bi récupération pour waa moom sa réew ba tey ñu ko le numéro 4 mu élaboré ñëw ci côté latéral bi le numéro 3 oh bal bi lay gën a noo na ko pour le côté droit mu def une deux tegal na ko c'est bien fait, c'est bien fait pour le numéro 10, oh, le défenseur, bien Jaï, pour le défenseur le défenseur, le capitaine même, voyant de l'équipe de Dégoda. Moi, le capitaine de l'équipe, c'est la personne morale de l'équipe. Oh, na jour Deggo Daaru Rahman bu tëdd waa moom sa réew nee nañ day jàppale nee na temps boo Daaru Rahman moom sa 1-0 pour l'ASC Deggo Daaru Rahman dégagement certainement waaw noonu la ko defee sax benn noonu la ko defee déggoo daal Rahman bëkk nañ bal bi mu ñëw ci zone adverse bi waa déggoo dëggaan bëkkaat ko pour le numéro 9 moo doog a dugg léegi bien contrôlé qu'est-ce qu'il va faire nu def Le muy le le il attend Donc nañ ko élaborer nañ ko de numéro 3 mu ñëw ci Il produire un bon jeu le numéro 12 latéral gauche de Deggo Darou Il ñu élaborer pour le sentinelle le numéro 8 le capitaine vaillant de l'équipe de Deggo le numéro 3, le buteur, il est partout, il est partout, le numéro 3 de Dego Darrahman. Oh, mal négocié, le ballon est sorti pour l'ASC Momseré. Un but à 0, Dego Darrahman 1, Momseré. le numéro 17 de l'ASC Dego muy reprendre ñëwaat na ci bal bi ñëwaat na ko defaraat profondeur je crois c'est très fort génn na effectivement fort dafa foor Le é est trop fort dans les 16 mètres 50. Pour la de go. jox na ko excentré bi day dem day dem day dem non non def na demi croisé dugal na ko profondeur oh, défenseur bi génn na arbitre na di rien pour waa moom sa qu'est-ce qu'il va faire day dem un dribble day jéem a tenter dribble bi day dellu si waxaat dóor bi dagaase na ko mu génn dóor bi dagaase na mu génn bal bi touche si réew touche nañ bal bi récupéré def na talonnaat mais y'a personne waa dem na de dem na le numéro 9 oh défenseur bi teg na tànkam mu génn en touche réew Deggo Daaru Rahma pour Deggo pour le numéro 9 de Deggo Moubalem n'a négocié récupération pour le numéro 9 l'attaquant de Deggo mal négocié bal bi ñuy reprendre ko door ko l'attaquant de moom sa réew jotu ko ma ngay dem góol be nga koy def na temps ray temps bi benn 10 à 15 secondes ay wañu da yéen ay reporter na fi ne du ñu reporter technicien yi ñooy mujjee reporter mais loolu du yoon du yoon les techniciens ñooy reporter loolu du yoon ay reporter ne fii y a des changements qui se préparent y a un changement pour waa Deggo Darou Rahman le numéro 5 va sortir rentrant le numéro 4 le numéro 5 moy génn bu Deggo Darou Rahman xam naa mooy ki blessé moom mooy genn voilà moo place on sànq on dirait waaw moom moy gën a rentrant le numéro 4 le numéro 4 daf moy nuroog dudu dudu la moy nurool dudu la kay dudu mo dugu ak le numéro 11 le numéro 4 mo gën numéro 4 génn na Doudou moo dugg pour le numéro 4 Doudou Ciment ouais bien fait mais c'est perdu pour l'ASC Deggo Darou Rahmane le numéro 3 moo récupéré bal bi jox na ko le numéro 9 le numéro 9 mu def ko profondeur pour mu dem. dem na qu'est-ce qu'il va na crochet def na crochet da koy yokkal wala non non aba rabattre ci numéro 9 bi mu delloo ko ci milieu terrain bi pour le numéro 8 le axial def na ko le numéro 11 le numéro 11 le entrant hors jeu hors jeu reporter yi daal ñëwuñu bàyyi leen rek ñuy wax ay numéro ñun ñu xamuñu joueur reporter daa ngi taxaw ne ñu reporter di bàyyi techniciens yi di reporter du yoon loolu du yoon le numéro 12 de l'ASC Deggo fort arbitre ne dit rien arbitre ne un petit crochet pour l'ASC Moom Sa Réew defal na ko ay deux tiré na ko balbel dévié ko ça va. doy ko Ablaye suis trésorier général. médical la commission médicale sapeur poids rouge je suis le président de la com la commission quoi. relance est bien fait pour le gardien de Dégo Darou Rahman dem nañ mais ils sont pas encore réalisés la deuxième but numéro 9 oui. numéro 9 touche touche. touche génnul arbitre bi nee na génnul bal bi récupéré par Doudou defal na ko à profondeur qu'est-ce qu'il va pour le numéro 9 door na ko eh, waaye da ko laal ba pare nay hors jeu bi nee na hors jeu hors bal bi moo doon moo waaj a dugg moom pour l'ASC moom sa réew waa l'occasion est à l'ASC Degauda Rahma jox na ko le numéro 3 le buteur arbitre bi nee na rien def na profondeur le numéro 10 day dem day dem day dem day dem qu'est-ce qu'il va faire day dem oh tegal na ko tegal na ko door na ko gardien bi delloosi na ko gardien bi delloosi na ko tiré na ko encore na oh quelle occasion défense va repartir de derrière. Le porte va dégager, ça sort en touche en faveur de l'AICI. Diego Darman.